alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwaana illa ala zalimin wasalaatu wasalaamu ala imaami almursalin sayiduna muhammadin sayidi almujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaara te di leen baal àq di leen ko baal waaye di ñaan yàlla suñu borom bi subhaanahu wa mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci suñu émission yi tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla mu sàmm leen aar leen aar seeni njaboot yombalal seeni mbir te jàppandal ko te guddal seeni fan lool te yokku leen wér ak mbooleem ñoo xam ne tabaarakallaahu ñoo ko yittewoo te muy jullit ñëpp di di àddina bi yëpp a ah, di indiwaat itam beneen sarax boo xam ne bu am solo la jullit dafa war di dimbali mbokkam surtout ku ko yittewoo te néew la te néew doole sarax sax danga gis même ci koor yonent bi sallallahu alayhi mi ngi wax ni naan afdalu sadaqaat fi ramadan sarax bi gën ci sarax yi mooy saraxe sax ci weeru koor waaye waxuñu maanaam euh, yi nga xam ne moo xew léegi nga xam ne sax duñ ci indi ay détails waaye baax na lool gersu miskin yi néew di doole yi di yëkkati di leen sarax ci weeru koor day yokk ay tuyaaba lool lool lool kenn xamul fu tuyaaba ga yem waaye tey ñun dañ laa indil sarax boo xam ne dafay dox ci lu gaaw a gaaw ci wàllu avancement ci mbiru avancement lay dox ma bëgg nag nga bàyyi ma xel te déglu yow mi nga xam ne yaa yor entreprise te avancé wul wala na nga bëgg mu avancé dese naa jàppandi yow mi nga xam ne yaa yor atelier wala place wala sa wàllu liggéey wala école wala lu mënti doon waaye daal gis nga ni daal avancement daal amagu ci. wala bëgg nga lool avancement bi gën a gaaw te jàppandi te kii avancé loo mbir yi mooy yàlla kii ñàkk avancé loo mbir yi mooy yàlla yàlla moomu nag doo tayyi ci di ko ñaan yàlla moomu nag doo tayyi ci di di jéggalu yàlla moomu noonu doo tayyi ci tuub waaye yàlla moomu doo tayyi ci toroxlu te di ko wéetal la ma la waxoon rek boo dee def yooyu rek moom yàlla da ngay nekk ku ko jege te su boobaa loo bëgg yàlla defal la ko bul fàtte ni sax tamit ci biir weeru koor gi wax nañ ni ah duaa u saaim ah la yustajaabu waaw maanaam ñaanuk aji woor gi moom lu ñuy nangu lay doon daawatun laatu raddu kenn du ko delloo ko defee dañ ci profité itam di sarxe lu baree bari tey ñaan yàlla say ajo yàlla mën koo faj su ko defee sarax bi nga xam ne mooy avancé loo mbir ci ab ñam la jëm biskit mii nga xam ne dañu koy lekk am ñu ko bëgg lool rawatina sunu gone yi wut ci 66 nga teg ci plat tasaare leen mbiskit su ko defee mbiskit moomu danga ciy wut 66 66 ku ne xam ne ni moo jàpp allahu te mooy yàlla allahu te mooy yàlla laa ilaha illa huwa boo boo ca noppee nga jël benn mbiskit par benn mbiskit boo jël yaa ngi cay wax yaa allahu yaa allahu yaa allahu ba muy 66 xanaa kon leer na 66 mbiskit nga teg leen mbiskit bu ci nekk nga wax ci yaa allahu jël sa temps nag te bañ koo yàkkamti yaa allahu yaa allahu ba muy 66 nga tufli ko ci 66 ba 66 mbiskit yépp mat boo def rek nga yëkkati teg na boo def rek nga yëkkati teg na le ba 66 mbiskit ya jeex bu 66 mbiskit yépp jeexee nga boole leen soo leen boolee nga tàllal loxo yi yàlla booy ñaan li ma la wax rek ñaanal yàlla sooy yaakaar na nga yaakaar yàlla booy wakkilu na nga wakkilu ci yàlla booy muslu na nga muslu ci yàlla bul fexe sa dund gi wala sa jaamu gi nga ci bokkaale ak yàlla dara jàppal jullil wakkilul ci yàlla ñaanal ci yàlla sañ ngaa ñaan sañ ngaa ñaanlu sañ ngaa itam saraxe sarax bii di dox ci wàllu avancement boo ko ñamee incha allah tabaarakallaahu boo koy def itam na nga jàpp ba sell na nga jàpp ba sell nga toog jël sa temps boo ko mënul nga jox ko yaakaar mu defal la ko su ko defee boo leen boolee ñoom 66 mbiskit yooyee nga defoon benn bu ci nekk 66 yaa allahu ëfoon ko ca nga boole leen lépp nga daal di koy saraxe. kañ nga koy saraxe boo koy saraxe yaa ngi koy saraxe ci ak suba teel suba teel gën gaa teel maanaam mu ngi mel ni rek bu nit ñi jullee fajar ba pare noonu muy teelee noonu nga saraxe ko ci suba teel ga yaa xam xale nga koy jox wala mag koo ko mën di jox baax na su ko defee itam nga boole waale ci itam tuuti weccet ci xaalis bégal kooku nga koy jox incha allahu rabbul alamin ci kàttanu yàlla say mbir moo nekkoon bu mu mën a doon te woon avancé ci mbaaxu yàlla ci barke yaa allahu ci turam bu màgg boobu incha allah suñu boroom dana la ci dana loo say mbir dana la teggil sa njàqare moomu waaye jeexul de mbokk mi yaa allahu boobu nag nga fexe nag saa yoo jullatee saa yoo julleetee balaa ngay jóg ci siyaada ga di lem di jóg nga fexe yaa allahu boobu yaa allahu boobu nga def ko encore ba muy 66 ginnaaw julli bu nekk mbokk yi nii ma la ko waxee nii jël ci sama temps nii expliquer ko nii ba mu leer boo ko defee nii te jubluwoo ci ngistal soo ko defee nii te jubluwoo ci mbiral àdduna dara def ko li wajhillaahi ngir sa jëmmi borom saraxe ko ki nga xam ne yow yaa ko ne incha allahu rabbul alamin muy entreprise muy muy muy société muy lum mën a doon ci sa liggéey boo mën di yëngu te gis nga ni tey mu dox bu subaa dox wala gis nga ni bu doxee itam na nga bëgg mu doxee dëgg-dëgg des na defal sarax bi nga bàyyee sa bopp ak yàlla tawakkilu ci yàlla incha allahu rabbul alamin yàlla mooy ki lay dimbale mbokk bi soo ci bëggee am lu la gën a leer soo wootee ci suñu numéro bii di 77 453 52 94 daañu la ci indil ay leeral kon ñu leen di xaar ci commentaire yi ci laaj yi ngeen di laaj waaye bu leen fàtte mukk nag tabarakallahu abonné seen chaîne bii di Thiès Info tabaarakallaahu ñi ngi fas yéene ànd ak yéen ci jamono yi nekk ci lenn ci ay xam-xam ci wàllu diine ak lenn ci ay secret ci ay wàllu ñaan ak ay wàllu sarax lenn loo xam ne itam ci ay wàllu secret ci alquran ak ay aaya alquran haza wa billahi tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aleykum wa wa barakaatu